ki nga xam moy Ngone ndjay geewal nekkon suñu invité déposé na lettre de démission ci courriel bobu ñuy woyé OCI manam organisation des célibataires invétérés loolu moy kon amna borom kër ki nga xamanteni nak tay mom moom la ñuy dal suñu émission ah moy ki wara joxé kon takku dënn yi ki nga xamanteni nak mom mo japp as bi koku di ndanan bo xamni ne ci mbalax mi lu yéeme liggéey ko diggante Sénégal ak Allemagne

xol li nga xamanteni mom lañu indil tay ci seen émission un artiste vous parle donc Abraham Pipo yow la ñuy déglu. donc euh, mbokk internet yi ni seetaan ci Sénégal TV ak euh, Seneweb donc ñi ngi tok ak euh, Abraham Pipo nga xamni ni la bo xamni ni liggéey na lu bari ci wàllu musique bi ci bi rew mi ak bitim rew mais Pipo balaa ñuy solu ci waxtaan bi ma bëggoon ci tënk bo nuyeen mbokk yi ba paré nga présenté nu kan moy Abraham Pipo. Je suis donc di la jiital euh, ci nuyo bi nuyo bu mag bu kawé ak euh, mbokk yi nga andal donc euh, di nuyu mbokku auditeur yi nga xamantene ñom ñoy ñooy senevep ak Sénégal TV donc di len wax ni Abraham Pipo donc natif de Thiès la donc magué entre Thiès Dakar donc voilà dugg ci musique bi quand même à Dakar en 1989 là chez par l'intermédiaire d'un ami alpular, Amidouba, et son oncle Biran Dja donc euh, c'est comme ça que j'ai débuté la musique donc euh, et après euh, Dakar je suis reparti à Thiès pour faire une formation à la mécanique générale donc voilà diplômé en 95 dans la mécanique voilà et parti en Allemagne en 98 en grosso modo. <laughs> donc je bëggoon nag ci aussi sa parcours mais cette fois-ci ci parcours bi nga def musique bi maanaam ning ci dougué, fi ci je ba nga lay suivre suivre sa carrière ci bi showbiz bi. ba voilà donc ni ma duggee ci musique bi vais euh, moom laay donc euh, euh, Amidou Ba à Grand Dakar Mon moment ki nga introduire pour la première fois ci euh, musique donc euh, c'est un ami c'est un jeune frère mais mon moment ci tout voilà donc euh, puisque ci biir quartier bi ñun xamoon nañu ni mom dafa doon def musique alors euh, en 89 donc euh, j'avais vraiment envie de faire la musique donc voilà me côtoyé ko mu yobuma sen groupe alors suma premier morceau bi nga xamantene mom la bind fofu nonu mu nekkoon Mambamba parce que donc bobu pas won une idée pour créer way ni rien mais euh, bi ma xalaatee lu bari bari bari bari xamna naa pour ma bind way alors il fallait que moy yóbbu dara luma ma présenter ni ma bineli. donc j'ai pensé à Bamba puisque mom euh, xamna ni géej le go donc fuma ci tibé mën ci waxta duma jéxal donc alors l'idée m'est venu m'est venu comme ça donc ma commencé ci Mam Bamba donc ci ak mom quoi euh, groupe Horizon voilà. ma bëggu ñëwaat aussi ci walu album yi manam ci ñaata cassette nga génne ou bien album yi fu mu toll wala euh, album international nga génne naka la liggéey bi demee ci côté bobu bah voilà euh, album bima ma njëkk moy génne sama taaw donc euh, mais mais bon pardon moy sama réew du moins sama réew donc dans sama réew dama ci wayoon sama taaw et alors mon deuxième album ma tuddee ko sama taaw donc je suis suma matin? alors donc mooy que ni deux albums mon amagum donc ay métissage de style musical ci ñaar yep. mais pour man du musique internationale bataille parce que vraiment bu ma def musique internationale afro pur don, ou wala high life wala ragaton wala banane style wala mbalax bi même certes mën un nekk international mais euh, d'une autre façon donc métissé ak euh, yenen instrument musical ak un timbre euh, vocal bu ñuy mais pas un timbre ndanan bi ñuy fini quoi wala bon ça dépend même lolu sax timbre boobu sax mën na ci dugg ok parce que ça fausse pas de toute façon mais quand même euh, dina am yu bari ay changement d'al du don ak beaucoup de tama beaucoup de sabar comme on le fait toujours ici hein comme je l'ai fait moi-même <laughs> ici hein voilà dans Xale donc ça serait pas ça une musique internationale hein Bye. ou euh, coalition ou ko collectif wala entre musiciens yi. Mhm. mu melni affaire a bo xamni mhm. forme de groupe pour di di produire mais projet vous bah voilà donc euh, di profité occasion lancer le message même parce que projet bi euh, projet bu ma yag ça fait longtemps des années hein mais euh, voilà donc aujourd'hui mangi pareil pour Teko ko gannaaw bima ma ak ñi nga xamante ñoy sumay musicien donc il bi dafa nek ni ñun ñep du groupe bu ñu comme depuis Horizon quand j'ai commencé avec d'autres chanteurs mais là maintenant c'est autre chose parce que ku ci nek bay nga sa es ci ben yoon bañu tu as prouvé am nga lo def am nga ay cassettes tu es connu internationalement et nationalement voyez donc kon ñooñu la wax ñu ma tànn ci ñenn rek quoi ñoo xamante ne daal gën nañoo déggoo ak style musical bu xaw a euh, jaxasoo boobu noonu ay rappeur a ngi ci ak mbalaxmaan ak instrumentiste yu macha allah yu am ak euh, professionnalisme voilà donc kon ñooñu laa wax ni nañ leen daje au lieu ku nekk bay waaram wuti ji benn yoon rek wut ay musiciens ñun bu ñu booloo nekk au moins. Euh, six à sept chanteurs donc dañuy gëna am doole euh, ce groupe là fu mu wootee muy ëpp doole bu Abraham Pipo woté won rek wala bu kenen ci ñom rek woté won et que instrument ici c'est des professionnels yo xamantene dañuy fixe basé wu ci groupe bi parce que xam nañ ni doole bi groupe bobu wara mëna am boo bokkee ci benen groupe bo xamantene le leader est unique donc kon xëy bi dina ko ëpp change pour wara mëna percer alors je je me permets de citer donc les les chanteurs donc muy man pap Daly Ndiaye ak euh, Ngone Ndiaye wala ak euh, Ablaye Mbaye gi ci ak yeneen artiste voilà donc je veux pas continuer ah. donc euh, toujours mbok internautes yi ni seetaan ci seneweb.com le clo ci ak Sénégal TV donc Abraham dama bëgg papier yi ne fi nga jël ci ben soko yëkëté nga talal ko ci caméra bi ñu xolal mo ci nek ñu oh. commenter ko okay Vai lá. Então cortar lá de Ah. Ya. Wah, nena tak kuden. Ya. oh, alaj bar, mbar dañ la yebal ci man. Wa kon nak xamna bala muy dugg ci question bi. Ah. Wa dam dam dam la nan ndokalé. Wa parce xamna ni dañ ci nga soxla. Donc ci jigen ju bax ko xam mo nekkon suñu invité di ndanan bu mak ci walu tasu. di artiste complète boo xamante ni dafa mënee boor yu bëri yàlla def muy sa soxna waaye balaa ñuy dugg ci loolu waaw léegi dañ la bëgg a laaj ñin war a jox takku dënn tey ji loolu du wax <laughs> wuu alaaj baara question bu doy waar gis nga nag fi mu nekk nii moom su fekkee war naa joxe takku dënn moom moom defe naan ñi ma war a jox takku dënn mënuma mënuma leen a matalee <laughs> non maaru day taali parce que moom macha allah ndaw si yàlla daf ko may bayre boo xamante ne moom dafa mel ni daal euh, ñëpp ko bëggoon ah waaye gis nga yàlla nag moom euh, ak la ko neex lay def donc yàlla def na man euh, mu doon sama soxna donc takku dënn moom cosaan la aada la donc lu rafet la mais ah ñi ma nar jox takku dënn <laughs> bari na daal alaaj baara la anta waaw oh, anta oh. wa yéeme na de waaw ki moom yéeme trop mom waaw ki nak mom anta yalla dafa def muy turu suma dom donc elle s'appelle Ndey Anta Mahena ça c'est le nom de ma fille ma fille ma très chère fille ma fille aimée donc ma fille aimée ma fille aînée donc euh, voilà donc euh, mu ëmb lu bari di wund lu bari tamit euh, donc nga gis ni bu ma ci commenté moom toujours daf may dafay bari lu may jox quoi donc vraiment surprise le bu rëy ci man parce que je m'y attendais pas mais quand même naa ci mën a wax tuuti rek sama doom donc malheureusement je n'arrive pas à la voir donc ça fait euh, six ans de cela donc elle a aujourd'hui 8 ans. Récemment, le 11 mai, donc j'ai fêté 8e anniversaire Ndai Anta donc au Madison donc je mbokk artistes yëpp ci donc ñu koy euh, naqarlu di